Euh, Karim Xurum Xaq maa ngi lay jaar. Euh, alaj bi tey maa ngi nuyu bu baax Karim nuyu Coxu maa ngi nuyu Issa Pouye. Dagibto maa ngi nuyu. sama waa ji maa ngi koy nuyu bu baax a baax. ah xam nga sama tur. Karim coow li bëri na temps yi. mais xam nga sama tur. non xam naa trop xam naa trop. Ah? nu mu tudd pourquoi nga sama waa ji. nu mu tudd. Ah? pourquoi nga sama waa ji Moussa Traoré. ba tey man mën naa nekk fii di taxaw fii Moussa Traoré yar ma nga ne man xaw ma Moussa Traoré. xam nga neexul ba neexul neexul ba noonu Sénégal yëkkati sa micro bi ca kaw voilà Sénégal ñoo war a bàyyi polémique bàyyi jaxase dégg nga Moussa Traoré mënu maa yar ñu bokk benn koñ maa ngi moom moo xam ma doon ma ba jàngi arab ba ma Moussa Traoré loolu soo ko waxee loolu soo ko waxee dañuy nuyu jaxase quoi waaw dañuy nuyu jaxase mais maa ngi nuyu ñëpp waaw di nuyu Sénégal bi yëpp waaw ñëpp Karim coow li lan la da nga may nuyu bi tey boo ma eh. da nga may nuyu dama war a nuyu damay nuyu waaw nuyu Karim nuyu yaa ngi dégg di nuyu ñi nga xamante ni ñoo may jàppale bu baax a baax mm-hmm. di sant sénégalais yëpp di gërëm ñëpp sénégal lam taa bi man sénégal lam taa bi moom laay nuyu man man nuyu ma sénégal boo xam ne comme sénégal ni man sénégal lam taa bi laay nuyu <laughs> man sénégal lam taa maa ngi koy baax a baax a baax di nuyu Sénégal bi nga xam ne bi nga xam ne day xëy nekkul ci réseaux sociaux yi ko wax mu mm-hmm. bi nga xamante ni Sénégal bi nga xamante day xëy liggéey Sénégal bi nga xamante ni day xëy yor martoom wala beneen mm-hmm. wala mu yor tureelam ut ko raaxal Sénégal bi nga xam ne day day xëy yor man Sénégal bi laay nuyu man maa ngi nuyu Sénégal yow dafa mel da ngay gaarwaale non gaarwaale ma gar noonu bitee xam nga lan la xam nga lan la gis nga doomu aadama ci boppam ni ko yàlla bindee ni nga ko bàyyi noonu mm. na ko na bàyyi noonu mais Karim yow lan mooy sa problème instant man moo ma yéem man c'est-à-dire yow Karim da nga doon jàppale gars yi toog fi tey yaa leen doon jàppale di fighting di xeexeexe mais tey ji ñu gis Karim beru jàkkaarloog ñoom lu xew yow yaa ngi wax mu jàppale te xamul mu jàppale mu jàppale ba nga ko wax da koy xam la moom moo jàppale. jàppale moom mooy jàpp ci combat bi. waaw jàpp ci combat laa doon jàpp. combat ñoom Sonko ñoom ñoom ñoom combat Sonko ak Diomaye du ma taay di ci man bokkuma passif. waaw man mais yow lan la déranger ci ñoom instant bi. waaw li man déranger wu ci ñoom man déranger mais xoolal da wax benn affaire bu ndaw booy passif yi taf la di nga doon dundee lii nga doon def lii nga def pour lan loolu pour lan loolu. mais ñoom bokk yow ah jàppale la. jàppale comme lan. jàppale la utal la xaalis bokk am nga fi jafe-jafe gars jàppale la. def ay ket mais ñoom ci ci kan ko njëkkee ñoom ci Sonko lañ ko njëkkee. waaw ñoom ci Sonko lañ ko njëkkee téeméer téeméer lañ doon dajale. waaw ñu dajale ma fukk ak juróom fukk waaw ñoom téeméer téeméer lañ ko dajal man ñu dajale ma fukk juróom fukk juróom dëgg la loolu bañu lu mën naa ko nangu ah mais boo bokkul Pastef man am naa trois nit dëgg man bokkuma Pastef a ma bokk mhm. ma bëri sama yëf yi bopp ñëw taxaw ma ñëw taxaw ci boppam ne man dama dem assemblée xam ñaata place la mhm. yow Traoré su ma la laajee assemblée ñaata place la ah. xamoo ko ñun li ñu wax moom Cheikh Bara Ndiaye bi taxaw am kaddu yu mu teg sama ndig sama ndig sama ndodd la moom xamu ko moom xamul assemblée ñaata place Issa Pouye boo ko laaj assemblée ñaata place du ko dañuy waxtaan mais dañuy waxtaan loo xamante ne tey dama leen ci plateau yi. damay laaj deux fois deux léegi damay laaj. damay laaj non léegi mais assemblée mais bi tey mais bi tey bi. Eh, assemblée dañuy wax ne gars yi mën nañu fi ne am 150 députés. waaw mais bu nekkee 105 places yow député bi est-ce que dañuy am place. mais xëy na moom place la waaw place place yi ñu toog. ah place yi nga toog assemblée lu may wax yaa ngi di di wéti te xamul li may wax lan la ak li may wax lan la yaa ngi dégg. yaa ngi dégg xam nga Moussa Tra bi dama la bëgg. waaw mën a siiw dafa yàgg. man bi nga wër naa gaynde la waaw xam nga dama ko bëgg man. waaye dama bëgg ma xool loo aar la. waaw d'accord dafa bokk dafa bokk Sénégal. wax nga dëgg yaa ngi 105 places Abdou Karim Xrum Xax xaj na fa loo xaju fa. waaw xaj nga fa nag vraiment. Abdou Karim Xrum Xax xaj na fa loo xaju fa. xaj nga fa 105 places xool ko ne 105 places

lu tax loolu. 15 millions baax sëñ Mountakha mu baax xalif général di murit sëñ Mountakha Mbacké mi fi teewal sëñ Tuubaa sëñ Mountakha moo baax. sëñ Mountakha nit ko du ko wala yàlla kaamil la mu noonu sëñ Mountakha Mbacké yàlla yàlla guddal fanam sëñ Mountakha Bassirou Mamadou Lamine Mbengue moo ma jàpp ba yóbbu ma sëñ Mountakha ne ma toogal nii ma toog sa bala coro wan fa laa ko fekk mu ne këram xul xaar looy wut fii waxuma ko sama soxla waxuma ko ne 15 millions laay wut ma ne taxaw sëñ Mountakha ne ko Mbacké Bari yaa fi teewal sëñ Tuubaa sëñ Moussa dañ ko doon jox addi mais yow nga dem di ko def ndànk rek di nga waxatee ngi nii da laaj ba pare jënd ci nga dugal ko tijjal man mënu man cuq man mënu maa man mënu maa tijjal sama man mënu maa tijjal yaa ngi dégg mu ñëw ma ne ko Mbacke Bari waxewuma comme ni may waxee gi nii yéen dama ne ko Mbacke Bari ci yar ci tegg ma ne ko Mbacke Bari ab taalibe ab ndongo dafa bëgg dem ca pencum ndaw réew mi taxawul fa diine em <laughs> <laughs> <laughs> yaa ngi dégg kii bi ma reetaan sax. waaw yaa ngi dégg Abdou Karim xool c'est la première fois may waxtu ree. waaw yaa ngi dégg ma ne ko sëñ Mountakha Bassirou. yow mi fi teewal yow mi fi teewal sëñ Touba. Ah. fii ci kaw suuf. ñoom ñi nga xam ne yaa jiite murid yëpp. dama bëgg dem ci pencum ndawum réew bi tey yu de waaw maa ngi lay xool dama la xool mais su ma xool yaa ngi dégg bi tey xoolal ma ne mooy diina l'islam teewal fa alquran teewal fa daara teewal fa doole ñu jàng alquran ba pare ñu mm. a teewal mm. sëñ mm. ba pare non moo moo mën nga alxuraan mën ko mën naa alxuraan mm-hmm. mën naa alxuraan tuuti ndax jàng naa ndax is xam nga man bi tey mm-hmm. chaque samedi ak dimanche may dem weekend dem ci daara ma faafaal mu jàngal ma zamaan Kaolack ma taal sama oto def sama essence dem ba Kaolack ci zamaan ma faal faal mu jàngal man Abdou Karim xurum xaq ndax ku bàyyam daara la ko bàyyee mhm. mu yor daara di jàngal internat yëpp mhm. ma faal mu may déglu mu may setaan mhm. li ma xam ne dëgg la ma wax sëñ Muntaxa yaa ngi dégg kon ñun bu ñu taxee ne man jànguma man mu tax man jànguma man Abdou Karim xurum xaq ñun war nañ koo seetaan yaa ngi dégg man jàng naa ara ay ta lësi yu kasi bidin fa salika lësi yet am yettim fa laa toll yaa ngi dégg man dama ko mën wax seebara ma déglu baax a baax ma dafa benn aaya boo xam ne fàttaliku waaw am na war nga ko fàttaliku jëru ngay liir ay ay ay kii nii dégg nga na nga fàttaliku aaya boobu baax a baax a nu ku nekk war nga mën a sa diggante sa borom ak sa diggante sa wal malaayikatu safan mm. laa yatakallamu illaa man azina loo rahman fas xaalis sawaban mm. foofu laay tàggatoo nii nag ñi nga xamante ni kayitu këram ko mm-hmm. ci ensemble mm-hmm. nit jëgg kayitu këram na ma am mm-hmm. ma ne ko lii pour lan la mu yëkkati këyitu këram na ma am ma ne ko pour lan la mu ne a ko lan la mu ne fu ñu jëm bu ma joxee kër gi fu ñu jëm ma delluwaat këyitu këram la ko am kon man Sénégal lam daal laa tey maa ngi sant leen gërëm baax baax di ko bàyyi mu wax question mu ko ma tontu ko woon na ko man jàng naa jërëjëf euh,